tës tës ci Zik FM di journalu faits yi suba su ne suñu téere dina jotee altine ba àjjuma tës di xew-xewu jamono ci biir quartier yi kafe nga seet ah. de mais ma ci si ah, ah. ah. seex. Hmm. borom. animateur bu mag bi ma demoon sànni jamra ba dikkaat. <laughs> noo sànni jamra te mën na. Hmm. te mun na. fara jaw ma jaw xool bi. yoro jow booli mbooj. de eh Cheikh tëj na eh, baata eh, rek. maa la wax baata rek. yow carte bala la jébbal. lii rëy na. bii mooy tiire lu la mooy jox carte blanche. te xam nga. carte blanche mi ngi noonu. carte bancaire yi. yu gab yi. Ah. Mm. dafa am ñoo xam ne ni yii mooy xaay classe. visa la la jox de. foo dem fu ne mën nga ko fayee. seex nag. mooy jaayee la xam waaye nag. lii yokk risque la ragal du def. lii nii nii. yor ko risque la. wuute naa sama bos bi nga xam ne. rayal xam nga lan la. rayal ko lii rayal du ko yor. am na si yoo xam ne boo ko dugalee allez vous en la lay wax de. wuute naa bii c'est li nga génnee nii. risque la de. kat bi Mamadou Mouhamed Ndiaye ak. lii xoolal lii rayal du ko def. Fulkan. allez vous en kat bi da lay Omar ah, yow yaa ngi doo xam ne du ma nitu fii. Ah. Omar Cheva. Omar nuyu ma gis may la Diop. Omar Cheva ñu ngi nuyu waaye sunu waay. wa barakaatu hoo hoo groupe Nokos. Mm. <laughs> ñoom ñi toog. surtout ma bës a ab sa mbaay yi. Mm-hmm. ak. kuli ab sa mbaay. ak. coro kuli ab sa mbaay. Mm-hmm. ak Birima Daali Njaay mbaay mu nekkoon seen maam. Ah, ah. moo daan way taayaani dammeel yi. ca kanam. bu xare masaanaan moo daan jiitu. balu kanam waaye du balu kanam rëkk junjung yi. yëkkati drapeau bi. dékku baliya jamono jooju géer yi nag. ña nga yaa nga woon ca ginnaaw di xaar njunjung gi tàngal seen deret. alors ñu fas yéene soobu ci ci ki xeex. lu si bëri balu dox loolu encaisse. may li ngay wax metti na ma. te xeen gu mag lan daa ngi. xaw ma ci xeen gu mag. ball xeenu ball. wékkoo ko côté bu ne. wékkoo ko côté gu ne xiin. naan rong fii tong fee. xam nga yoo xam ne balu wet. xam nga ndax gerte du métti. doo dox normal da ngay mel kuy soox. Moussa Seck léegi bokkul ak bokkul ko da ngay mel kuy soox. ngir kooñandu. waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. am na géer yoo xam ne dañu doon fent. moo tax waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. yan géer a fent man sama géer gu baax. man kay yow ba man ba ma la génnee sama programme. Ah, daa yaa man yaa sama gër léegi de. yaa ngi nee naa la yow fu mu nekk nii. man ko may diñ dox xaw yow wax. man man moom ku la ñemee daa fekk nga toog nee naa bokkoo ci exception nga ci. may diñ bal dox. yow sa juróom-ñeent ma mit ay wàllu wulen laa wax. ah tamit nag. Eh, yow yow sa juróom-ñeent ma mit ay wàllu ca baraag <laughs> yaa ngi dégg bokk. <laughs> jigéenu wàlla mboj nga yow it nag. xam ne Cheikh lay jël ci jigéenu jigéenu wàlla mboj nga. sëñ Tuubaa kon ma wax la kon ma la. waxee du ma la baal. kon la xam nga wàllu yow wàllu wàllu. xam naa ne daal. bañkat. jàmbaaru fekk tëdd. waaw. dañuy ñaan yàlla di jëf. jong ba fa nee na ma. kay man samay maam. Ah, ñoo duggoon ndeer. moom laa la ndeer. Ah. sama yaay da njongo ba fa nee na ma say maam ñoo ca lañ bokk. ndax bañ gàcc bañ ku leen yeb bañ ku leen suufeel. man sama yaay yaayam waalo waalo la papam waalo waalo la. tubarkal sama yaay 100 pour cent waalo waalo raxul dara. wàcc man lébu gi nag maa ah. maa ngi ca bokkee ci sama papa. ah ndeysaan. non non cubb gi. cubb gi ah cubb ndooy mooy lébu ah. mm-hmm. waalo la. mais mais mais lébu lébu waalo la jógee wala xamaloo. Ah. ah waaw. ñun lébu yi ñoo ngi nii toog. lébu waalo lañ jóge de. waalo lañ jóge ñëw sanc fii. sax ma ni Cheikh man waalo laa gën a saf que lébu sax. ay waalo waalo pire borom laakoon faakoon ñaakoon ñun lébu laa ah. ñun. ah ma ñëw fii. Ndakaaru. Ah, bañ fi fi ñëwee fekk fi soose yi. Mm. Dakar aussi. léegi nag Cheikh nag Cheikh soosey léegi <laughs> ñoo njëkk sañ ci Dakar. loolu doo jox ko gis nga. Ah. dinaa la boole ci gaa gaalu mbay gi de. <laughs> loolu doo jox diggante lébu ak soose ah. yi. Hmm. doo jox ko li tax nu mu tuddooti li tax euh, li tax barñi ñu ne ku fi romb ak gàllaaj mu toj. Hmm. am na histoire la. Hmm. ah maam tulli gi gàllaaj boo mën a yor. Mm. booy romb ñi moom bay boo nga. man bay boo nga xam ne ah, supprimé wu na. kon dañu bari seen. yàqu na dafa am kay dafa am nooy duggee. kon ñu ñu fa dëkk moom. am na nooy duggee ba gàllaaj bi di fonctionner. Mm. mais tey gàllaaj yi réew mi bu amoon ay notice mm. <laughs> mbaamam li kilo ñaata di leen wax ne gàllaaj bi expiré na. expiré na kon yu bari am na ñoo xam ne bu ñuy romb ñi rek. romb maam Matuli borom xare bi. Matuli nga boobu day fekk. Euh, bari na ñoo xam ne jàppuñ ci dara. boobu day mu yow bari na ñoo ne dañoo gàllaajoo. da ngay takk ba takku nii rek. ndeket day dugg ci àll bi defar ba jekk. loolu lépp quoi bar ji noo fay jaare waaw hmm? ah, waaw am mbër moo xam ne boo lay dugg ngay romb waaw boo yoree gàllaaj dafa am nooy duggee mën nga fa dugg nag du toj mais duggee nag hmm. yooyu ay mbir la sa xaw daal nooy nuyoo daal nooy nuyoo ah, man mi dëkk bari ñi de lii maa ngi koy doogu de man lébu sa xaw loolu dolli bari ñi nga ko ba suñu ah, maam yi xanaa dolli bari ñi nga bu dolli bari ñi mais sama mais sama soxna bari ñi la dëkk ah dolli bari ñi nga loolu suñu maam yi dolli bari ñi la kay suñu yi léwee ko ba mm. Mm. ma daan dégg ma ma matuloo mankumba làmbandooy mankumba làmbandooy ànd ndax matuli ànd ak loolu la mam mm. matuli rek doyoon bu ànd ak maam mankumba lam bu ànd ak moom day gën a diis mam matuli rek doy na kooku mooy borom xare bi léegi nag soo rombee bari ñi rek ñëw ba ci rond point bi nga xam ne moo nekk ci wetu euh, usine boobu mooy ba ñu tudd. xam mm-hmm. mm-hmm. na loo war a tari nag. station ah. waaw loo war a tari juróom-ñaari yoon. doog a romb doog a dugg Rufisque romb. Ah, Youssou yaa mën nag. ba da ngay sàcc ah, doog a romb. yooyu yooyu ay taarix la yoo xam ne. xale yi tey mënuñu koo xam baaxi nit ñi nag. Youssou ah yooyu eh, ay waxi rajo. <laughs> non non ay waxi rajo parce xam nga du gàllaaj dugg sax si. xam nga rajo alalu mm. jinne la. du gàllaaj yëpp dugg. du gàllaaj yëpp war a dugg de. am na yow bu dee pour noter mm. sa bopp rek mm. mën naa dugg waaye bu ah, man mi dëkk man mi dëkk bari kay war naa ko xam. léeg ñu defoon la takkatil. laaj ko waa bari mbaa ñu defal la lappataak mbaa ñu defal la téere bu mu mën a doon <laughs> ñu fañ ko defee ñu fon def mu fonctionné jaar yoon. Mhm. nga dumul Ndakaaru. <laughs> laal mu supprimé wu. <laughs> fekk lépp dem na ca yoon wa. toj <laughs> mais Cheikh bokkut ak li ñu naan. bari ñi rek. gàllaaj du jéggi ndox yamul. am na gàllaaj yoo xam ne du jéggi ndox. am na gàllaaj yuy jéggi ndox. am na gàllaaj yoo xam ne fan la ko joxe nga koy takkee. doog a de doog a départ. gàllaaj bu nekk ak notice am. bu nekk ak notice am de. Cheikh naa jàmbaar yu mag rek. Ah waaw. Mhm. fekk ci bu nekk ak notice non di doom yu mag am solo de. ne c'est que yii xam ko dafa am solo. yu bëri xale yi xamuñu ko nag. déedéet mm-hmm. xale yu bëri nag léeg lekk ñoom ñoo tooñ sëriñ si naan sëriñ si. sëriñ si aay nu wala ma. te xamuñu yow mën nañ sax amaana fekk ñàkk xam la. Mm-hmm. Mm-hmm. ab sëriñ jox la càngatu juróom-ñaari fan mbaa ñeen fukki guddi te cangat bu ne boo ko laalee bu fekkee wér na xale yi danañ la topp. yu tuuti yi danañ la topp. janq jeeg jeeg danañ la topp. ak njagam ak waja waja xale bu jigéen ba nga doxaanoon bañ sax day dikk day dikkaat maa ngi. ba boobu nag day fekk yëf yi baax na. waaw ah, boobu mooy kondo. waaye boo sangoo lundi mardi mercredi. ba jeudi. di ñu topp la. ñu ñëw rek nga doylu. jeudi ñu ñëw nga doylu. Adja Khoudia Ndiaye yegg si. wala gaa doylu baaxul ci dara. waaw teel a xéwlu baaxul léegi nga toog naan sëñ ba aayut fekkee yaa aayut. <laughs> yaa doylu rek sëñ bi def na waree fam ne yaa aayut. yaa waroon taaxir. waaw da nga waroon taaxir. waaye cere jaa ngi nii rek nga ne tey ba lekk bu bër. waaw. <laughs> te yooyu nag wërsëg ña loolu ñu wërsëg bu dee ñëw noonu lay demee. Ah. boo xale yi dawee ñëw xale yu ndaw yi tout tànk moom it bu ñu dawee ñëw song la mm-hmm. boo amee sa fukki dërëm jëndal mburu mbaa nga jënd biscuit mbaa nga jënd tàngal jox leen teral leen da fàngal la da ngay falang fa fangalang fan ngay falang mm-hmm. falang kay ku ñëw rek nga falang ah. <laughs> toppal na de <laughs> mu envoyé message moom xam na xam mm. xam na xam na bari ñi lañ fay wax ak rond lañ cay wax mm. cam ca bari ñi bala ñàkk fa sama waa ji mbay mbay gis ngeen mbay nu mu solo moom la tey xoolal mbay mambay mambay dafa wàcc jàkkaarloog moom rek <laughs> commencé koo tag mbay xam nee naa ko tey moom sa daamina baat gii moom wuyu nga dëgg sa tubaab bu sax sa sa jam put gëla tey nii laa def mbaxar création maa mi géwal yi nii lañ daan solo de nii lañ daan solo dural nag may dellu na nag maareen xam nga lay dural maa nga maareen fi ne nii xam nga lay dural nii nag digg ah. digg digg la ko tey may dural <laughs> nii taxaw naa naa non lu may dural nag laa war a encaissé. Cheikh waxambaane comme yi nii la ñuy solo. ah, ah. ah la ko wax. kama ko ñëw waa Jurbel la xam naa ne. te ah, te du waxambaane non non Paa Mbay waa Touba waa Mbàkke la. waa Mbàkke la benn la te mbay du waxambaane. Paa Mbay toog loxo bi. man yëre bu ci nekk mun naa la wax ko ñëw. <laughs> fu mu bokk. ma xam jàll maa mu fan la fan la moom Mbàkke la. Paa Mbay Medine Jurbel. Paa toqal maa nga maa nga maareen tey moom yaa nga maareen. ne ko maareen la yaa ngi jur biir. da ko da ko da ko fermé da ko encastré. yow xam nga ah, du tegle. da ko encastré du tegle. <laughs> isotherme la ko def. yow li la ñëw nii. <laughs> waaw mais <laughs> nii. xam téere njaxas non njaxas la njaxas du. Eh, eh. yére bi am na tur bu bees nee na ko isotherme la. isotherme la waaw. <laughs> da koo wen quatre heures. wax dëgg ne da koo kastré da koo kastré isotherme. daanaan la man ak Jurbel la. daa mi ne daa mi ne daa mi ne bleu turquoise moo. ba yére foog nit ñi foog nit ñi xool sama statut photo yére mbay bi ba jàkkaarloo ko. ubbi yére mbay xam bu ci nekk mën naa raf ko ñëw ban def bi ko ñëw fu mu ne <laughs> goro Ndakaaroo ko ñëw xanaa sa bos bi isotherme moom yàlla ngeen gudd mbay maanaam isotherme moom mbay yow sa ñaw bi mm-hmm. ñetti ñaw lañ boole ci sa ñaw <laughs> isotherme ñaari ñaw fa mu déggal ki déggal ki ne ma ngir yàlla fa tool sa ñaw doo ko gis de <laughs> tabaski moom isotherme laay de tabaski bii di ñëw incha allah. ba pare may la may la njaxas bi ci loxo yi. waaw moom laa lay wax ci côté yi. bu la teg quoi waaw. <laughs> bala maa ngi dënd bi. ñaari waaw njaxas la mais sa loxo la. bu mboq bi mais attends njaxas njaxas. mboq bi njaxas moom day bari couleur nag. ba pare Mbaye yaa ngi dégg ko. zone zone mboq beeg bi la boole. dégg nga mujj sax wallaay sax duma sax. bii bii non bay boo ko salaatee ñoo xeex xeex. yaa njaxas bi. danaa la summi ba nga set solo la sama yére ñu bind. mboq zone bu mboq beeg pays bi la boole. waaw ah, njaxas bi nag dara nekku ci nag. bu la bi doon aada fa rafet. très joli wax dëgg yàlla. waaw mbay ñetti yére lañ la ñëwaat. isotherme bi moom dama ciy wut. non non mais njaxas la. dañ laa ñëw dañ laa ñëwal turki njaareen. Ah, waaw ah, arc-en-ciel. li ñu ko ñëwal nii li ñu ko ñëwal nii ñetti ñëw la la la la sa tëyeel ñëwal. waaw danaa ñëwal turki njaareen ñëwal la jomput ak njaxas. waaw mais loolu tax mu mën a ñëw. tubarkalla ah ñëw na kay <laughs> lii tax mën a ñëw. macha allah ci biir moom mooy jëmput bi jamput bi la foo jamput la xanaa. Mm. léegi rugg bi ci biir nag. en tout cas daal njaxas njaxas moom njaxas moom wax dëgg yàlla njaxas la. njaxas moom ban ne njaxas. <laughs> mooy bari couleur. njaxas moderne. njaxas moom da ngay bokk kàkkatar bi njaxas. dëgg yàlla mi ngi nii. njaxas da bokk kàkkatar bi couleur bu nekk day ñëw mu def mu def ko bàyyilaat. ba pare defal la njaxas ah, basin ñawal la n'importe quel njaxas de bu basin la la defal kon yokkal kat ak ak ak ak njaxas defalu la jërëjëf bu basin la a defal Mbaxar Diallo Mamou Thiam jërëjëf dañuy dañuy weccoo ma Mbaxar Diallo Mamou Thiam jërëjëf dama lay jox bi nga dama may jox bi ma jox la ah bii nii en tout cas non non bii moom jaxas moom na eh, eh, moom il faut ma heures la mbay il est inspiré. rafet na trop Isoter mu la 24 heures la nee na Isoter heures la mbay Karim du nit nee na Isoter mbay looloo ma rey looloo ma rey looloo ma dajji fi mu ne da koo encastré non lépp la trois ans non pourtant man nag man nag bu ma wàccee maa mbay mbay mantu ñoo jël la waxu teer ba de ñoo la non ah damaa jëloon malaat jaar fa. ay c'est que mën na taay bi dem ma ko yëg de. et puis sax barke rasulullah. dootoo jaay di jël ci terre bi yow. ah dootoo jël ci bi chaque jour jël. ah daa gën ci man yoruma yoruma kii bi daamar yoruma daamar ah, a ñëw bàyyi ma jël te daamar yéen war ngeen wax oto bi ñëw. dafa war a ñëw war ngeen wax a ñëw day ñëw oto bi incha allah amiin yow li nga màkk de boo ko ñaanee mu ñëw day ñëw amiin mbay tamit nag amiin amiin amiin di nga ñëw léegi ni ma ñaanal amiin defal la ci ñetti waaw amiin amiin kon barki moom Cheikh yittewoo naa ko def ñaanam du laal suuf amiin sonn naa ci teer bi de amiin hmm? seet ko gaaw na neex na nag dina am daam asal jëli teer na gaaw na wax dëgg naan teer bee gën a gaaw ci ndax la ca teer ba <laughs> gaare ah? balaa at biy jeex. ah di nga mën a kaay def ñetti waaw. amiin incha allah amiin amiin amiin incha allah barki maam si yàlla gaaw te yomb nag. oto kay dafa dawal léegi. yàlla gaaw te yomb incha allah amiin. allahumma ah, amiin. arama nga ñoom de cabaa nga ah, sa jëm waaw mën na caa gaaw nag moom. waaw mën na aram joxul caba joxul <laughs> ko. Guèye maam góor jox ma woto. wala aram maa la wax lii. waaw ah, gaaw na ci de. Euh, joxe daamar moom gaaw na ci. non dina ñëw incha allah dina ñëw. Ah, ah, naan mbaye moom. parce que mënti jógee na yor caabi naan moom. parce que te moom nag bu dee moo ko def dafay gën a ti. dafay a gaaw da lay gën a encouragé. Mm-hmm. mbay déggoo de. Mm-hmm. at mi di nga ci téye oto. amiin amiin waay amiin baal ki maam Cheikh. amiin amiin ah, amiin incha allah incha allah de yow nekk nii fi nekk nii. Mm-hmm. loolu wax fi mu nekk nii yàlla jëf ndax fa nga jóge sama waaja hmm? Hmm? dugg na des na. la sëñ Abdou Karim ne woon bu leen bu leen bu leen bu leen lu ngeen bu ngeen bu ngeen di caaxaan di wax may dëggal loolu moom. yow nag fi nekke nekk nii moom. waxal amiin loo ñaan ci kàttanu yàlla yàlla def kon amiin. yàlla na amiin yàlla nga gudd fan yéen ñi ñuy teewlu ne leen a amiin Maodo Niang a ngi sa numéro Talibe Cheikh. jaxee Guèyeen bi jaxee nee na waa ICP bu Pikine madame Ning Dalifor madame Sougou borom Pikine Nord madame ngoom madame Ngom sama mag ju baax ji yal na la yàlla taxaw nee na nee na isotherme risque la ragal du ko sol Boubacar Faye Guinée maa ngi koy nuyu isotherme risque la dara jomb la dara baax waaw waaw macha allah xol bee rafet borom borom borom xol bu rafet la mm-hmm. xol bee rafet day ree rek yaa gën ñëpp naka day ree rek waaw nit bu melee noonu mm-hmm. foofu day baax mm-hmm. day ree rek rek da baax gis nga mënoon naa ñëw ci kër gi Amadou xam nga tey laa am occasion peut-être pour wax ñu xatal ma damaa ñëw gars yi yaatal lool pourquoi xatal gi ñëw gars yi di ma ñoo mooy sax sañe xal naan ma del del def nii del def nii pourquoi xatal kon nag yéen kenn du yéen. xam dëgg yàlla ñun ñoo xatalul. wax dëgg yàlla. dëgg la ñu fi ñëw. bi ñu fi ñëw. tos c'est la famille. bi mhm. ñu fi ñëw pompe ñuy pompe vélo. ñuy mhm. pompe vélo. Mhm. amuñu ko. ndeysaan. ñu fi nu yaatal ñu. dëgg yaatalee réew mi bëgg ñu. ndeysaan bi bëgg yàlla di indi teraanga bu nekk. ba tey nii lu ne fekk nu fi. lay ndeysaan. kon keneen ku fi ñëw bu ñu la xatalee dañ dul gor. lay mbay yal na yàlla yaatal. amiin allahumma amiin amiin amiin barke Seydou. amiin Cheikh amiin amiin amiin amiin amiin fan bu gudd. amiin amiin la sutura dolli la teranga. amiin amiin amiin. mbay yal na bokk ci missionnaire yàlla yi. amiin amiin amiin amiin amiin amiin amiin. wilaaya dénk la ay milliards milliards milliards. amiin amiin amiin amiin amiin. lu ko yàlla dénkee alam nag gërëmee ci ay. waaw yàlla dénkee nañ ci jaamu yàlla. amiin amiin amiin. lu ko yàlla dénkee nañ ci tabax ay hôpitaux. incha allah. di tabax ay école tabax ci ay jumaa moom subhaanahu wa taala inchaallah dëgg la de hmm. barki maam raan da ngaa baax mbay wala amiin fii soxor am soxor amu fi euh, place nag tamit loolu moom mënoo cee soxor kati nekk maa ngi baax baax a ñu koy nii leen si ñaan sama mag ah Cheikh kuy ziar da ngay la kuy ziar jege ñëw ngeen sàkku si ñaan bu baax a baax daraay jub daraay yi ziar nooy def. dama ko ñaan yàlla de. Hmm, ndeysaan. dama ko ñaan yàlla de. Hmm, hmm. ins ñu ngi lay nuyu bu baax waaye. sama rakk ins waaw ins ñu ngi bu baax a baax a naa yàlla de lépp lu ma ñaanati yàlla ci kaw suuf mooy faatu yàlla na ko yàlla nangu. amiin incha allah yomb na yàlla de man naa ko yàlla de. amiin amiin yàlla na ko yàlla def. amiin yàlla na ko yàlla def. yàlla na ko yàlla def. amiin amiin barke alayhi de ci gën tuuti pour nga ne tëf rek suñu borom nam yomb na ko. moo tax fi mu toll nii lu ma mën maa ngi koy ñaanal nit. wallaahi wallaahi dama koo ñaan yàlla. wallaahi ma ne ko lépp lu ma ñaan ci sama dund gii li des ci sama dund. bul si taay yow yàlla a nga ko nangu. amiin amiin bul di barki Kaaba gi yàlla. sallallahu alayhi wa sallam baax rek moo noppale. loolu de borom xol bu rafet a ko mën. baax a noppale. Hmm? baax daa noppale de. léegi boo mënee ñaanal waa ñii tamit Papa Amadou boo demee sa ñoo ñooñu seen jàmbat. Mm-hmm. dañ ma koo yóbbante. Mm-hmm. Kédougou Kédougou département ba ñuy wax Salamata am na commune bu ñuy wax Dakateli foofee village bi mu ngi tudd Ningu. Ningu dañoo am seen poste de santé bu nga xam ne poste de santé daaru Ningu sa tëj la jëm. bu tëjul ba mm-hmm. noppi. poste de santé bi waaw. ndax infirmier chef de poste bi dafa jël dogal arrêté liggéey ba. tëj ko ndax mënatul fay salaire ya. imagine poste de santé boo xam ne ay village yu baari. le polarisé fa la ñu wékku. waaw fa la ñuy fajoo. ak tàngooru métti wi. xam nga dëkku kaw gi feebar fajo fa sax dafa métti. charrette mhm. yaa nga fa lu nekk. wallaahi ay kilomètres. wallaahi na boobee nga xam ne moom la ñu am daaru ningu. Mhm. infirmier chef de poste ba nee da koy tëj. ndax mënatul fay salaire ya. Mhm. commune ba nag moo si daan jéemantu. waaw di jàpp commune bu Dakateli. di leen subventionné waaye mënatul. yàlla dimbali leen. kon nag état mi ngi ñuy déglu. Mhm. ministère de la santé mi ngi ñuy mhm. déglu. Ah, waxaatal waxaatal turu dëkk bi. commune euh, poste de santé bu Daaru Mindu Ningu la. commune bu Dakateli. Dakateli sa Kédougou département bu Salamata. Mhm. Kédougou Salamata. fa foofu danañu. am na exploité or ba. or ba. Kédougou Kédougou. mais ñàkkul ñàkkul am na ay ay nit yoo xam ni. ay bonne volonté yoo xam ni. dëkk boobu lañ dëkk mbaa njëge dëkk boobu. donc bu ñu dégloo lii appel la. pour ñu dem jàpp ci lii rek nañ doon waxtaane sànq de la ñuy ndamu naan waaw suñu or geeg suñu zircon geeg suñu phosphate geeg yooyu lañ cay am mhm. mais boo xoolee dëkk yi dalloo li ressources yi yëpp ñoo gën a sonn amay jafe ñoo gën a ndóol mhm. Mhm. nga loolu mënul nekk Rwanda gii sànq maa ngi koy wax président ba ba mu ñëwee. Mm-hmm. xam na ne yii gars yi di nekk yëfu tappale la. Mm-hmm. dafa woon gars yi ne leen réew mi mën nañ ko defar te mën na ne. Mm-hmm. tey fii la suñu njiit ñu njiitum réew. di ko tagg moom. di jël référence ci moom macha allah. ndax la mu def biir Rwanda. or ba ba mu ñëwee fekk gars di ko exploité. ñu koy jéggaani di jël di jaay dëkk ba di jéggaani di yóbbu. daf ko dakkal. Ah, waaw créer société boo xam ne état bi moom moo ko moom ñuy exploiter seen or bopp dëkk ba di ko jëfandikoo ñu koy jaay di mooy ful la yeneen réew mooy ful la mais ñun ban at nañ tàmbali di exploité or Sénégal mhm. ba léegi ro nañuy jël root yóbbu yóbbu buñ ñëwee cof-cofal ni si tuuti état bi nag ndamoo loolu moom daanaka lu précieux am na ci réew mi te lu précieux foofu lay jógee wallaay dëgg la foofu na day fàtte di jàll yéen ba tey xamu leen ne Sénégal ñun ay locataire lañ fi ñun ay locataire lañ de fi mu toll nii buñ toogoon ñetti weer faylu naa def am kay lu leer laa la mais mais mantu leen wax tamit jamono jamono yee pàcc ca Touba ndindi dara moo fi dara ndindi mm-hmm. mm. ndindi tamit Talla Seck sama frère sama cousin yi may xamal ni dañoo am gàllankoor ndox mm-hmm. ndox tamit amu fa. mu ne mbay lii moom damaa bëgg nga jooytul ñu ko. ci test bu ko defee nit ñi dimbali ñu ndox moom amu fa. dañ cee a taxaw bu a baax a baax Youssou Seck ñi ñoom Ibrahima ñoom ñëpp. maa ngi lay nuyu. ko bànneex Chéri Mansour Jong. Ah. Ndeye Marème Ndiaye. yal na yàlla guddal sa fan. amiin amiin wax na Pam maa ngi lay nuyu bu baax a baax moom frère Papa Amadou Mbocc. soxna si nee na dafa fàtte valise bu ñuul. ci benn voyage ci benn taxi jaune noir. Mhm. jeudi 11 mai 2023 vers 21h30 mi ngi jële taxi bi nag ministère de la santé ak ñetti collègue euh, ñaari femme ak kenn góor taximan bi nag mu yóbbu leen euh, ci biir euh, lycée bi. 77 540 97 39 lay wootee Abdou Sy mi ngi am 6 ans doomu njoon di gise ak mbay ma nga réere nag ci waawoon ku gis Abdou gise mii naw Abdou Sy. mu gis Abdou Sida woote 77 659 28 48 démb Cheikh moo ma interpellé xaw ma. ci euh, viole boobu nga xam ne daf fi amoon. Mm-hmm. te waa ji ñu doon wax ne dafa viole lu. viol collectif toll ci ñeent fukki xale yu teg. Mm-hmm. Mm-hmm. viol ba ñu répertorier xale yi nga xam ne jot nañ dem hôpital ñu saytu leen. 28 la toll. Mm. ñaar fukki xale ak juróom-ñett. 28. am na ci nag waxoon naa leen ko ñoo xam ne nee ñu seeni parents jotuñu leen yóbbu. wul hmm. xool leen jotuñu dem. mais ña jot a dem. ba dugal ay plant moom vingt huit lan. vingt huit ñooñu dem nan ñu xool leen gis ne dañ leen sàkku. Hmm. problème bi nag mooy. jàpp naan sax Mouhamed moom moo ma gën a sonn ci biir problème. te hmm. topp kaa bi de. foofa na ni ci nëpp nëppal amee moo ëpp. ci kaa bi. te su micro bi daal maa leen wax li tax nëpp nëppal gi. Mhm. xanaa waa a ngi dégg. waaw bu ñu ngi dégg baax. gi ci ay mbokkam ñëwuñu fii di layal waa ji. xanaa naan juróom benn la. naan juróom benn la. te juróom benn ya muy wax sax. kiiwu leen. waaw yàqataanu leen. bu dee benn sa ëpp na. bu fekkee moo ñoom ñu nga seen ay kayit. yuy leer yuy attesté ne. dañ leen sàkku xale yi. fi mu nekk nii. rax ci dolli ci lu ñu war a wax nag mooy nit ñi xeeb gi ñuy xeeb baatu viol. dañ lay violé sax ñu lay kaañoo xale yi looloo leen dal. ku xeeb dalaa dal naan leen chéri diw. allahu akbar te boo leen waxee loolu da leen di fàttali métit gën doon dund. subir loolu traumatisme assistance la ñu soxla de psychologique. amuñu ko nag ah, xoolal tellement dañoo dëxëñ dossier bi dëxëñ ba ba ñoom kenn mënu leen sax taxaw xale yi hmm, seeni parents nag nee nañ justice bu deful liggéeyam dinañu génn doxu ñaxtu yaa de parce que dañuy localiser waa ji naan nee nañ ñu mu ngi fii ak boo gisee ko gis fii ngeen dem waa dëkk sàngam am na ci ne sax xam nañ waa ji fu mu ne nee nañ mu ngi Casamance dañ koy nëpp nëppal hmm. ñoom ñii ñoo ko waxal seen bopp. mu ne Casamance la ne. ñu ne waaye localisé nañ ko foofu. ah buñ ko bëggee jàpp jàpp ko de. dëgg yàlla réew mi moom. Ah, ku si bëgg a teg loxo togal ñoom nee nañ dem nañ ci kanam procureur. egguñ fa. ah buñ demee tribunal dañ naan leen dossier bi ñëwagul fii. non déedéet. <laughs> non defal na <coughs> ñoom fa nañ dëkkee. fa ñu nekk am na forcément commissariat wala brigade de gendarmerie. dem nañ gendarmerie. waaw dem nañ police. ba ñu laaj leen ñoom ñëpp ba defar PV et tout boo defaree PV fu mu war a dem. da war a transmettre. ñoom eggagul foofu. saa bu ñu demee tribunal ñu ne leen dossier bi ñëwagu fi. Ah, ah, kon kon léegi procureur moom dina yëg ne ne dossier si wul. ñoom faf dañoo demaat porte plainte ci kanamu procureur pour mu gën a gaaw. oui bu ko defee moom soit transmis lay joxe. ba tey dara oh. yëngu. du mujj fenn. loolu fan la. du mujj fenn. waa léegi kii nga xam ne nee na deful kay moom. na ñëw ne defuma. andi ay preuve jarul daw di laaxatu di. ah de ka kañ moom it ñii dañoo am kayit yu. leer su kayit leer woon ka ni. yuy wane ne. loolu mu am waa ji daa yàqataan gone. ñoom ñi ne deful tamit xëj na am nañ ñoom ay kayit yu leer. xëj na problème bi ñoom kayit yu leer. ah ñoom ñi ne deful. ban kayit ngay am ci deful ah déet. damay wax doomu bokkam yi dañoo ñëw fii di ko a ñàkk def koy mënoo ci am kayit. Ah. Ah, ah baax na. xam nga lu lay setal. Uh-huh. xale ya. Uh-huh. wala ka a mm-hmm. seqal. Mm-hmm. te xale yi bu xoolee sa na looloo lay setal te la jiiñee ñu dem xool gisuñu dara jóge fa te xale yi dem nañ ba xool xam ne xoolee gis ne xale yi ci boppam mm-hmm. Mm-hmm. ñam nañu xorom mm-hmm. waaw te ñoom ñëpp joxoñ te ñoom ñëpp joxoñ papier yi génn dëggal ni xale yi kat ñam nañ xorom mm. ah. soo ba am ku ca wann lor waaw am ku ca wann lor du mujj fenn waaye nag xanaa wann lor ba rek <laughs> déjà preuve mënu ko weesu du mujj fenn du mujj fenn looloy erreur voilà looloy erreur waral loolu tamit nag looloy wax ji looloy erreur wax ni waaw mooy wax ji mooy wax ji mais réew mi kon ni def lan. ah moo ma jaaxal loolooy erreur ba nag. du bu micro wàccee ma leen lu tax ma leen du mujj fenn. waaw man micro wàccee ma wax leen la ma xam. ak lan ca dund ma ak Mouhamed Diaw mi yëpp. parce que mais boo demee ba xam ne yow sa wàllum yow yow wàllum yoon nga ne yow amatoo si yaakaar nga ne du mujju fenn. xam nga fii. Ah, ah. xale day jiiñ magum jëm attouchement. ñu làq jant bi di yor enquête. làq jant ba pare nekk sa dossier. di ko lijjanti lijjanti ba xam ne am na lu leer ñu door la yóbbu jugement àtte la te benn nit moo lay jiiñ benn xale. kon réew mi kon fi mu nekk nag kenn xamul. vingt huit xale. waaw mais bàjjen ci la ñu wax. man sama problème mooy xale yu am di diggante sept ans dix ans douze ans treize an ban intérêt la ñu am ne Fofana moo ma sàkku te Fofana sàkku leen ban. Ah, li ñu naan xale du fen. ay waajur seen i waajur ñoo leen instrumentaliser waajur lu jotee waa ji. lan mooy problème bi. non mënul nekk moom. bëgg naa xam bu dee dañ leen ah, dañ dañoo yónni ci xale yi wax ji frenku laay problème bi mooy lan lan jotee waajooju ba am een bu toll nii viol médecin moo ko mën a attesté attesté ah. parce que xam nga foofa nag ñu bëri dañuy violer seen doom ñu nëpp nëppal pour suturaal xale bi waaw pour bu ëllëgee ñu bañ ko xool diw dañ ko violé woon xam nga ku dem ah, ba taxaw ne sama doom dafa subir viol ràqatuwoo caméra ràqatuwoo rajo bañatoo ci suturaal sa doom bañ mm-hmm. dëgg bëgg dëgg feeñ mm-hmm. ah doo ko def ci neen suturaal boobu nag yaa ngi dof loo sa doom ndax dafay euh, euh, euh, loolu daf koy traumatiser. loolu benn et puis beneen bi mooy. day amul na nekk proie facile. pour ah waaw oui. bu xasee bu dund loo parce que xas na perte ndaw. Ah, day jàpp ne ne la porte ah. est ouverte. ouverte oui bien sûr man benn naq rek laa ci am. mooy ñooñu di leen di tooñ naan série diw nañ ko ba. waaw ah, nañ ko ba kay. waaw loolu rafetul xam nga ne moom mooy loolu. xamul lu ñu war a kafeex lu ñu war a def dëgg. gis naa lu ñu war a café wala lu ñu war a def dëgg. Hmm? Hmm. lu mu. test la hmm. na yàlla baax na yàlla bëri na sutura. ñu xool lu mu. waaye yow léegi yow. ah déglu élément bi ñu. noonu rek déedéet affaire yi du du du noonu. du mujj fenn du yombee noonu de Cheikh. non man loolu nag laa bañ du mujj fenn boobu man man man moo ma nekk waaw kon ban Sénégal la nekk léegi. ay xale yu ñu daw Sénégal ku léegi benn nit Sénégal ko am bàjjen ak ku amul bàjjen xam nga lu tax. wala benn affaire vingt huit personnes xale. man dama lay jox benn misaal. a dem hôpital ci ñu gën a dem rek ci lu gaaw ci Sénégal tey bu ñu nekk. boo fi amul ndey amoo fi bàyyi amoo fi bàjjan ñaari ngi nii ñu ngi sabet muy kasoog bàmmeel la preuve en est que suñu li suñu liggéeykat bi ñuy liggéeyandul Oustaz Assane Seck. Mhm. mi wax benn wax benn phrase la wax. am koo xam ne taxaw na filmé boppam yore jaase ak paaka. Mhm. ne danaa nangam danaa nangam danaa rendi danaa nangam Oustaz ñu tëj si kaso bi. Mhm. moom ñu bàyyi ko muy dox ay soxlaam. lu waral loolu. parce que dëkk bi ñu nekk la. kon daal da ngay am bàjjen ci réew boo ko amul kaso bi ngay fanaan mbaa ci bàmmeel nga yéen a tontoñi rek ba dee ñëw. nañ dem uti ay bàjjen. est-ce que boo amul xam. fa mi toll di. am réew nag bu ñu demee nag bay ba ba ba ba ñuy tooñ ay gor. tooñ gin leen tooñ amuñu fenn fuñ ko fajee. bu demee bu ñu demee ba war a bu ñu demee ba tuuru jot nag su boobaa nag bu ñu jëfee jëf ki mën naa yaatu mën naa métti. moo bu ñu defoon nguur goo xamante ni wala boog euh, dëkk boo xamante ni si lépp dañ koy teg ci yoon. amaana yi am yëpp du am. waaye nag jage nga ma wéeru nga ci man. defal lu la neex jàmmale yi. contre nga ma àndoog man wax nga benn wax maa ngi lay ciblé di la bàyyi xel bis ngay jëf def benn erreur bu ndaw rek du la ci jégal jël la tëj la ci kaso bii. Maodo kaso yaa ngi fees dal. mais mbir mi di mbir mi. ndax mbir mi di li ma ci xam am naa yaakaar ne du mujj fenn. da ngay gis dangay gis koo ah, xam ne dañ ko benn nit lay violé benn benn xale. ñu tëj ko kii nag vingt huit vingt huit xale. ñi jëf seen àddina ba noppi am ku ca wan lor kon lii. warul mën a yomb warul bu ngeen baalewul man du ma wax ak yéen. ah. ah chef de bu ngeen baalewul moom yéen du ma wax. waaw kooku mooy kan moom kooku moom moom xanaa actionnaire <laughs> kii nag kon moom chef de quartier boo leen baalewul dina ma wax ak yéen. teg ko fan moom léegi. micro bi de ba wàccee daal ngay dégg. xanaa actionnaire la ci viol bi. <laughs> chimère na teg rek bu ñu juree jàmm. na tës mooy xale yu ñu viol muy vingt-huit xale yoo xam ne fële si yow ci ñi nga xam ne bi waajuri xale yooyu ci nga bokk ana lan moo yeesaat ci dossier bi ak lan ngeen ci fu ngeen toll ci enquête ba ak lu ñu leen ci wax waaw dossier moom bañ ko déposé léegi ñoom xamuñu ci dossier yi dara nga ñëwaat encore ci fee yi ni waaw xale yi de biñ leen joxee euh, sëñ daara bi léegi mu leen di jàngal depuis ku fufu ba ak léegi nun nag am na fu ko tegoon ndax maanaam di ko jiital ci lu ne am ci moom confiance léegi ñu dema dema dema dem ba nga xayee ni gis nañ ci moom lu ñu neexut ndax sunu njaboot la la jàpp di ko tëddee ba tëddee ci lu war ñaar fukki nit ak juróom-ñett ma doomi benn xale rek moo ko daal di exploité feeñal ko léegi bi nga xamee ne que fi euh, da ko da ko da ko doon sàkku xale bi yuuxu daw nit ñi génn ñu ne ko lu mu mu ne leen moo bëggoon a tëddee ba gaañ na ko sax ndax ba euh, dara di ci génn léegi nun nuy ñu jël suñu xale ñu yëpp yóbbu leen hôpital seet ñu nit ñi ñëpp jaar na ci ñoom hôpital yi dem nañ ca hôpitalu dem nañ ca dem nañ police dem nañ gendarmerie bind nañ suñuy léegi it nag. xale yi ñaata at lañu war a am. xale yi ay dix ans douze ans treize ans moom la xale yi am ay xale yu ndaw la ñu. nag fi mu nekk ndax xale yaa ngi tëdd feebar. moom leen bi war naa war a mat cinq ans. yoo xam mi ngi koy def xale yi. mi ngi koy def xale yi. ñun xamul yéen bu ngeen demee hôpital loolu lañ leen wax. waaw ñun loolu lañ ñu wax. xale yi bi muy jotee ñoom xale yi nangu woon nañ ndax xale yi bi muy jotee ñoom lan la leen doon wax xale yi lam leen ni moom laa leen defal ci paan gi ngeen ci sangu ba jàngoro ji du leen dal lu ci def xale it da wax na boo demee ci seen kër boo nettalee sama kurus gi mooy wax sama kurus gi damay wax na boo ñëwee fi a dee xale a wax ma sax xalaatuma sax ci mbir yooyu dara ndek booba loolu moom lay meeseer xam nga am na loo xam ne boo ko solee ci yaramu xale ah bu sa loxo sa ginnaaw sa mën nga ci jóge ñàkk sa sa doom xale yëpp nga ne tëdd ñée wow koŋ ndax xamuñu loolu sa dafa teel ci ñoom lii nag waaw def leen ay xalaat mbir mii nag danoo bëgg ñu jóg ci lijjanti ko. léegi yow bi ngeen demee hôpital. Ah. ci bu njëkk bi ni mu demee lu ñu leen wax. ci xale yi ñun ne dañoo àgg na ci xale yi. waaw àgg na ci àgg na ci àgg nañ ci xale yi. ñaar fukki xale. ak juróom-ñett. ak juróom-ñett yoo xam ne àgg na ci seen kaw waaw nan la leen utiliser ni mu doon def. ba àgg ànd ak ñoom. ni mu doon def da leen di li ma la wax nii maanaam paanu ndox lay lay wut. moo leen di sangal boppam. ci wane bi ne daa bañ jàngoro ji. dal leen même jabaram. am na kum ci dóoróonum pes ci xale yu jigéen yi. ndax dafa ñoo de réeda bi dikk fekk ko ci kaw xale bi mu daal koy dóorum pes ne ko yow da jàng indiwu la fi saay saay la fi indi moo def loolu. jabari jabari ja jabari. benn xale benn xale ci ci ci xale yi fi doon jànge la ci la la am na kum ci dóorum pes na ko yow day sa yëfi saay-saay doo nga la fi indi ndax jabar ji da koo ñemewut ndax bu añee ba not mun a ko demal waxtaane ci kër ndiw sàngam ñoom demal waxtaane fële di ko di dàq jabar ji muy dem wax nañ sax ngeen ay lëroon jël tëral ay xale yi waaw uh-huh. yi nag lañ bëgg daal da dem ci yoon dañoo dem ci yoon ñu ne ñu nañ jël euh, seen def def seen seen plainte def nañ suñuy plainte plainte yi am na yu ñu dugal gendarmerie am na ñu dugal police léegi nag euh, euh, dem nañ ci kilifa guuf waaw dem nañ ci délégué quartier bi bi nga xam ne moo fi toogal yoon délégué quartier bi tim woo na chef de village am chef de village am na buñ ci munte moom du ci àddu moom buñ munte jéggale ñoom duñ ci àddu ngalawaay lii bu ñu wax ne rek fi mbokk nañ xool sa xam ne moom loi ñëpp la war a yemale ñëpp la war a ki am doole ki ñàkk doole ñëpp la loi war a yemale fi ne xale yi nuñ koy dundee dundee jeex jeex takk jeex takk wow koŋ ñii ngi tëdd ñii ngi dox waaye nuróotuñu nit am na ñu ci wan lor wala ñu ci wanoon lor am na ko ci wanoon lor ci xale yi am na ko ci wanoon lor waaye fi mu toll moom moom nun nun booba la dégg woowu ñunu woowu ñunu defu ñunu dara noo leen di woo waaye ñun noo ngi ci rek noo ngi ci rek lañ wax noo ngi ci bu fekkee ne nag nit da cee teg tànkam nga na teggi tànkam ni nu topp lii foofu ba pare ni ñu ngi tuddee fan ngeen demaat. xam euh, tribunal. déposé naa foofu sama plainte. léegi bi ngeen i léegi nag man gannaaw accès ci tribunal. wiiri wiiri jaari ndey rek fu mu nekk tribunal lañ war a jaar si. man dem naa tribunal déposé naa sama dossier. ndax lii mootuma koo dund. mootuma koo dund. metti na lool lool lool man mii di wax yow mii de sama dooma nga tëdd sa aw ma dërëm bu ma ko fajee dërëm bu ma ko fajee aw ma doo bëgg nag képp koo xaye ne dégg nga lii loo ci mën a jàpp nga sutub loxo ngelawaay nañ këfin muy ci pëlëkëlër bu mag ba ca ndakaaru sax mbir mi nañ ñu si dimbale nañ ñu si dimbale ndax xale yi sonn nañ jigéen ñi sonn nañ waaw ci laa bokk sama doom ci la bokk ñaata at ñaari doom laa ci am sax mhm. ku ci ne ñaata la am benn bi am na fukki at ak juróom benn bi ay xale bu jigéen bi nag moo jàngi bi mu ñëwee mu wax ma ko man sax nag gaw ma ko woon ci yow la jëkk feeñ ci man la sama doom moo ko jëkk feeñam moom léegi bi mu ñëwee bi mu ñëwee ci yow bi dafa fekk ma liggéeyi mu ne mu ne moom du euh, magam la koy wax ndaxte rus naa jàkkaarloo ak man wax ma ko mu wax ko magam magam daal di may woo téléphone fa muy liggéeyee mu wax ma ko ma ne ko est ce que loolu am na mu ne ma waaw am na ndaxte laaj naa ay moromam nee na am na. loolu nag metti na lool. viol boobu métti na lool waaw dañ ko tëddee. bi nga ñëwee. bi ma ñëwee. bi ma ko laajee mu ni ma yaay loolu am na. lu la wax mu ni ma bii danoo tëdde ñun ñëpp la ko tëddee fur fa ba la ko commencé. man nag damaa dem ba sonn ma la koo wax moo tax ma wax ko sama mag. moom lu ko wax foofu mam daw. wala da koo jàpp dugal ko ci néeg wala lan la wax foofu ñoom ñaar. sa doom lim moom jàpp ko euh, dafa sonn bi mu sonnee la koy door di wax. Mhm. ndaxte daf ko def ay yoon yoon. moom daf ma daf ma daan wax sax ni ma yaay man damay bàyyi jàng. ma ne ko doo bàyyi. ma ne man damay bàyyi te xam naa nag loolu sax moo taxoon mu ni day day bàyyi. wante nag bi mu sonnee ba sonn la ko wax magam boobu magam boobu daa di ma koy wax. bi ma ñëwee tamit yóbbu naa ko hôpital. ba ma ko yóbbu hôpital jaar naa yi tamit police. ba ma demee ñu seet ko ñaari xale yëpp ñu seet ko daan ne na ci moom. léegi ma daal jël kayit yi yóbbuwaat ko police boobu ak léegi nag. police wala gendarmerie sa police laa jëkk dem. Mm-hmm. bi ma demee police boo laa ko yóbbu. samay doomi natu laa leen yóbbu. ba ma demee ñu yebal ma ma yebal. ma demaat bi ma demee yebal ma ma daal ko yóbbu ci. police gendarmerie fa laa yóbbu kayit yi. boobu ak léegi nag dégguñu ci dara xamuñu ci dara. ma yaakaar ne nag lii. ñu déggoon naa ñu ne localiser nañ ko ba gis ko Ténéfoot lan ko localiser ba gis ko léegi nag nit ki boo ko dee wër ba gis ko ci béréb sàngam lu te yow nga dem jëli ko su fekkee ne ni jàpp ko rek tax na la yitteel na la wante xëy na jàpp ko da leen a yitteelut ba tax jëliwun ko ba tax mu riccaat leen mm-hmm. dégg naa ñu ne ma nga Casamance ndaxte bin jàppee soxnaam nee nañ jëlee nañ ci ma nga Casamance mm-hmm. may seet nag ba xam ndax ñii dañu ëpp doole wala dëkk bi dafa amatul yoon mm-hmm. wala lan la bu dee Macky Sall yaa ngi ñuy dégg réew mi déglu leen nu danoo sonn sunu doom yi dañ leen di kar ci mbedd yi di leen ñaawal ci viol bii ñu leen viol neexuñu képp ku nuy wut ku nekk ci sunu doom yi cee nga ñuy jaare xeex nan guddi xeex nan bëccëg chaque jour nit ñi dinu wër dinu wut ci sunuy doom dina wut ci suñuy doom metti nanu nag kii fu mu nekk nan nu ko lijjantil indi laat na ko ci suñuy loxo ba xam ndax lii fan la teg lii mu def metti nanu lool nag ñoo ngi ñaan ñëpp autorisation yëpp ñoo ngi ñaan mu dimbali nu jàppale nu suñuy xale ñu ngi nii analyse yi bindaloon ordonnance yi kenn ci amul doole joo ko euh, jënde wala doole joo ko defee analyse ndaxte kuy xëy di wëri am fóot fóot ba jant bi sax ñu fay la 2000 francs nga ñëw war koo jëndale say doom lu nuy lekk aw dàllam dagg nga war ko caa jënd 2 millions yi doo ko jël di ko jënd defi analyse wala nga di ko jënd ji ay ay ordonnance ñii ñenn ñaa ngi sëgg ci këri jàmbo yi di menace ba ñaq tooy xepp ñu di leen fay ñenn ñaa ngi di wër ci marché bi di jaayaatu ñoo ñu amuñu lu nu faje seeni doom hmm. nan nu dimbali Marème Faye Sall diglu ñu bu baax ma Macky Sall foo nekk waaw nan dimbali fun ko gis nan ko jàpp ku nu war a jàppale nag ñu jàppale. xanaa boobaak léegi daa yàgg. yàgg na ndaxte neen ku couvre la ko commencé woon. non non bi ah, bi ngeen ko yóbboo ci yoon. dossier bi bi ko yóbboo ci yoon boobu umagun koor. Mm-hmm, ba léegi si déggagun ci dara. commandant bi saa su ma ko wooyee su ma ko laajee ñu ngi ci ñu ngi ci rek la may wax. ba biig ci guddi laa ko mujjee woo. ñu ngi ci dong lay wax. sonn nanu nag bu fekkee dañ cee danoo jaay doole nan nu ko wax. Mm-hmm. ñun sonn nanu. waaw ah, man li ma si yokk mooy. ñun daal la am lu ñu naqari ci laa sama rakk moo ci bokk ak sama ñaari doomu nijaay sonn nañ man guddi du ma nelaw fan yi fajar laay nelaw fajar guddi gi sama xol bi day metti du ma mën a nelaw ñun nag mënuñoo dëkkum tere ñu bàyyi ko lu mu digle ñu def ko bu wootee ñoo fay jëkk di ko liggéeyal guddeek bëccëg loolu la ñuy wax du mujj fenn buñ nee dañuy dem wax ñu ne bu leen wax boo leen waxee dangeen di tooñ noppi leen dañ leen a tooñ waaye boo leen waxee da ngeen di mujjee tooñat bi ko mel nii daa musta am ci dëkk mu am ci dëkk ñu naan la bul wax képp koo xam ne mi ngi naan la bul wax rek mu ñoo ànd ndax lu bon lu salte lii kilifa def ko dëkk ci dëkk bii ñu jog ci seen tànk lànk nanguwuñ cee def benn jéego ñun nag xam nañ yaayam fu mu dëkk xam nañ fu jabaram dëkk am na doom bu jigéen ñoo ngi ñaan procureur bu mag bi mu jàppale ñu ci xale yi ñu jël leen en charge ki def jëf ju bon ji ñu jàpp ko violé xale yi ndaw loolu yàgg boobu ba tey ñu ngi koy jooy wax nañ rajo wax nañ fu ne mënuñoo fexe ba am ci ay résultats yu leer yow yaa ngi am lu la metti dem gendarmerie ñoom ñu ëlbatiku naan la boo leen amee mbokk fii woo leen ko ne ko mu xoolal leen ko foofu hmm. te loolu di liggéeyu gendarmerie ñun loolu bu doon suñu liggéey duñ dem gendarmerie ñun ñooy jug ànd ak suñuy mbokk dem wëri ko fam ne dëkk bi dafa am yoon moo tax ñu jaar ci yoon su amul woon yoon fépp jaar nañ fa hmm. léegi fu ngeen mujj fi ci yi nag dañoo bëgg génn ci mbedd yi wàcc ci mbedd lañ bëgg. fu ngeen jaaral ci demaat tribunal lañ demoon pour xool ba xam affaire yi egg na faw wala dara waa tribunal nañu ñun dossier yi yëguñu ko. Mm-hmm. jotaguñ ci. Mm-hmm. ñu am lu ñu metti nag xam ne lu mel nii moo taxoon léegi nii ngi yaakaar ne mi ngi mm, bi nee na ñoom yëguñu ne lu mel nii am na loolu nag moo tax ñu am lu ñu metti te bu yoon deful liggéeyam dinañ fayul suñu bopp mm-hmm. balaa loolu di ci am nag ñoo ngi ñaan yoon def liggéeyam kilifa yi nekk wax ndax lii dafa ñaaw dafa ñaaw am nañ lu ñu metti torom nag te nag balaa bakkan di des ci mbir mi ñoo ngi ñaan yoon def liggéeyam si sinon ñun pare nañ pour joxe suñu bakkan du ñu bàyyi tey du ñu bàyyi ëllëg jéem nañ ñoo koromp ba sonn nag ñu bañ ci noonu lañ leen doon ñëw naan ay ba jéggal leen ñu xale yi mën nañ leen a jël en charge leen bëgg mën nañ leen koo defal mm. ngeen bàyyi mbir yi mu sedd ndax kilifa kenn du ko yàq te kilifa googu yàq ay xale yu ndaw kilifa googu ay xale yu ndaw mu xañ leen seen jàmm xañ leen seen salaam bu doon benn xale sax dañ ko war a topp waxuma laa xale yu bari ñoom nag ñu ëlbatiku amaat fit demaat ci rajo di waxaat naan ay juróom-benni xale moom lañ ñu gis ak moom lañ di ko ñàkkal fayda te lii dafa nekkul mbir bu ñàkk fayda. yéen ñu koy mais mais déggoo li ma la wax man guddi du ma nelaw fajar laay soog a nelaw fajar guddi du ma nelaw ndax xol buy metti te man rakk laa ci am kon ki nga ñi nga xam ne ñoo ci am ñaari doom ñoom nan la ñuy def ñoom nan la ñuy def ñu tëddee ngay gis ay mbokki waay ci dëkk bi di romanteeg ñoom ci dëkk bi te sañoo leen a laal bu yoon deful liggéeyam nag dinañ dégg leneen pare nañ pour lépp nag xanaa ma am ci naqar lool ako diis ci xele yi ndax man xale yi sama ñaari xale dañ cee bokk te wax dëgg yàlla neexu ma neexu ma tey neexu ma suba ndax bu ñëwee ci mbedd mi xale yi di leen kekkantoo sama jarbaatu borom kër bi démb sax maa ngi moom jot nañ cee jàppante ci loolu lu waral loolu muy moom mu ne day kale xale yi pour bu sukkee ci ndabul añukaay li man lay wutaale naan xale yi séer ma ne ko baal lool ndax loolu baaxul ndax xale yi waaw séeri ndax boo waxee loolu maanaam xele yi dañ koy def góomu xol mm-hmm. ndax day ne seen xel ki ci xele nii mën na cee bañ a xam dara waaye mag mii moom da ciy xam dara bàyyi loolu ba jot maa moom ñu jàppante ci affaire yooyu wax dëgg yàlla am na lu nu métti lool ndax man suur ba nga xam ne xale yi fekk na ma may segg café ñu wax ma ko man dama ne man lii man duma ko jëmale kaw ndax li tax duma ko jëmale kaw fu baax fi mu bokk ak fi tax ma ne lii duma ko jëmale kaw ma bàyyi ban ba pare ci lañ ñëwee wax ma laa dooga man xaw ma nu man ak samay jooy wax dëgg na lii da a jàppale ko waxee waxu ci dara dañ ne fu ngeen tollu ñëwaat leen fi léegi ñun démb dañ faa dem ban fa demee démb ñun gisuñu ko moom gisuñu ko ba danoo ñëw bi ñibbisee ci lan doog a ñëw doog a bëgg ñëw fii wax fi ñu ne am na lu nu métti am na lu nu métti ñun yoon la ni déglu ñun danoo bëgg yoon def seen liggéey bu deful seen liggéey ñoom yoon buñ taxawu fi ñu war a taxawee ñun dinañ génn ci dëkk bi dinañ mes dinañ dinañ dinañ def suñ loo xam ne si naqari na nu bu boobaa ñun moom mooy loolu loolu daal moom naqari na ah yëf yaa ngoog. Ngor dégg de. <laughs> nga ndaw si dafa am lu wax lu am solo. mu mm. naan euh, buñ demee ñoom dañ naan lañ dem leen wax seen i mbokk buñ ko gisee ngeen ngeen ngeen ñëw wax ñu. xam nga bu fekkee noonu la demee. yow mm. dañuy bañ nee nañ senegal nit du fajal boppam. Mm-hmm. ki nga xam ne dangay bañ mu fajal boppam. Mm-hmm. bu ko yónni mu seetal boppam. Mm-hmm. ndax ki nga xam ne mooy seetal boppam. njombe li ko daal fi mu toll rek lay réagir bu gisee kii def. bul xam nu muy réaliser ci kaw kooku. Mhm. donc ñoom seen mission war na ci bokk ñu dem seeti ji waa ji. Mhm. peut-être mën nañ ñoom it ñuy gëstu bu ñu leen waxee ñu ngi teel place ñu aviser ñu ne leen dem leen côté boobu ngeen dem seeti. Mhm. mais amuñu droit ñoom di seetal seen bopp. ndax bu ñu seetalee seen bopp ba gis gis nga li ñu waxee bu ñu ko gisee comme te ñoom mën nañu leen fajal ñoom ñu fajal seen bopp dem na ba ne xam nañ jabaram xam nañ fu mu dëkk xam mën nañ dal seen kaw yàlla tere tere ci kaw fës kee ñu yegg foofu laa ñu yegg foofu nag. Mhm. ñoom nañu jéem a ngir yàlla dimbali ñi am na ñoo xam ne ñaar lañu ñu seeni doom. neexul xam réew mi mbay. mbay da réew mi dañuy jaaxal <laughs> loo xam ne mën naa jur jéyee joo xam ne. dañuy seetaan loo parce que nii boo xoolee li waxee nii xam duñ bàyyi. nee ñu xalaatu noo bàyyi xam nga. <laughs> donc nag nan na kilifa yi teel a artu. Mhm. balaa ñu àtte. <laughs> Mhm. xam nga. Ah. Mambay. waaw li tax ñoom ñu ne ko demal wëri indi. Mm-hmm. police yi ak gendarmerie yi ñoo amatul effectif. Mm-hmm. effectif yëpp ñu ngi point ñu teg effectif yëpp ña nga place tas xiir xaw ma tas xiir la xaw ma place de ñu teg. fi mu toll nii police boo ci dem. wala mhm. gendarmerie boo fay dem. Mhm. kilifa gaa fay nekk ak ñaari élément wala benn élément bi bind plainte yi. Mhm. ak di signé numéro yi di leen ko jox. ñëpp ngi ci mbedd mi léegi. loolooy problème bi. loolooy problème bi. kon gaañaa nga foofu sa place de l'obélisque. <laughs> rond-point yi kay. rond-point yi kay 4-4-2 en daal. rond boo romb 4 4 2. tey daal waa 4 2 5 10. en tout cas waa F24 ñoo woote tey. yaa ngi <laughs> effectif yëpp yëpp yëpp ñu ngi ci rond yi. Uh-huh. ak place yi nga xam ne fa la gars yi mën a defee grève. Uh-huh. bu dee uh-huh. police yi wala gendarmerie yi. baa fay nekk ak ñaar kenn ki bind plainte ak kenn nga xam mooy taxaw di xaar. donc looloo am ci bi ci teg mooy mbir mi nag. ngëm-ngëm gi ma ci am mooy. cooloo moo xam ne day mel na kii rek. demeen la fi amoon rek rek. Hmm? du mujj fenn. ngelaw ah, du mujj fenn du mujj fenn. baax na ah man na ngëm-ngëm boobu la am du mujj fenn dara. yàlla baax na. yàlla na mujj fenn. ah en tout cas. yàlla baax na. war na a mujj ah, ñu wàcc tali bi. Ah, hmm. kooka la bàyyaale. borom daayira waaw ziar naa la. borom daayira bi. ziar naa la bu baax a baax. ah delloo nañu jàmm rek. rek. yow moom oytul ñu porté la plainte de yow sa daayira boobu <laughs> ma wax wala viol collectif waaye <laughs> ayca <laughs> wax ñu foo tollu jamono jax circulation bi nu mu demee ah, voilà merci beaucoup Mambay l'actualité du trafic c'est toujours sur la 89.7 nous avons choisi tout à l'heure la route de Yarax en provenance du côté Blanchard Kapadour directement Espoir wante nag laata ngeen dépassé intersection deux voies yi nga xam ne bu ngeen di yóbbu di côté si matière bu Bel-Air foofu la xaw na yéex tuuti bu nga xam ne ñoo bëgg a wees circulation vers Espoir il faudra prendre la déviation euh, car foofu la y a des travaux bu la aussi mën ngeen di jël voie de contournement nga xam ne bu ngeen génne di euh, côté Molvir foofu aussi amul benn jafe-jafe bu dee rond-point souvent ay camions gros porteurs ñëpp a faral di jaar mais pour le moment amul benn embouteillage mën ngeen nga xam ne ñoo ko di côté centre bi daal di wutiri directement mool wit mooy yéex des camions en circulation moo di yàggal euh, bu sorti Colobane foofu la aussi euh, foofu la aussi euh, xam ne ñoo bëgg a rale directement la aussi c'est pas a des jaaree ko nag au niveau de l'entrée de Colobane foofu la jàppe na pour ngeen accès si rond point bi bu ngeen dépassé ba rond point li nga ne ñoo bëgg a wees en progression daa dirale directement carrefour maison du parti socialiste foofu la aussi ça circule tout doucement ndax nag ay wot yu bëri ñoo choisir accès boobu la Mbaye

yow kay jox ma foofu benn tampiko tampiko mooy sama jus préféré amul lu gën a neex tampiko ay fruits naturels lañ ko parfum citrus pêche wala mangue yëpp a neex ma bépp tampiko bu la neexee laal sa benn sachet mais am na bouteille bu ndaw ak bu ko nga pare parce que wàññi bi nga demee. yow bu dee défaillant Suivez votre émission avec OneXBet, le pari foot en ligne. OneXBet vous propose plus de 1000 événements par jour avec un bonus de au premier dépôt. OneXBet, pariez, gagnez.

professionnel pharmaceutique, expert du monde académique, industriel pharmaceutique, biologiste, partenaire technique et financier. Le Forum pharmaceutique international, un engagement pour une souveraineté pharmaceutique africaine. Suivez-nous également sur nos réseaux sociaux.

jour. Orange Monnaie. ana suñu mbokk taximaan yii Total énergie ñëwati na de fii ba le ñaari vidange yoo leen def ak suñu bidon Quaster 5000 yii Total énergie dina leen may lampe solaire sunshine ngir njëriñu kër gi yëpp waaw waaw def leen seen vidange ak suñu huile Quaster 5000 bi nga xam ni moo baax si seen moteur teg si ànd ak qualité bi gën tey aar seeni oto mani daw leen gaaw si suñu station Total énergie yii ngir bànneexu si ak Quaster 5000 daal dundal sa moteur yaxanal sa poche leeral sa kër

Sénégal en 2021. Venez profiter d'un cadre d'échange de plus de 1000 professionnels pharmaceutiques, experts du monde académique, industriels pharmaceutiques, biologistes, partenaires techniques et financiers. Le Forum pharmaceutique international, un engagement pour une souveraineté pharmaceutique africaine. Suivez-nous également sur nos réseaux sociaux. oubli. Désormais, je programme automatiquement mes transferts les plus fréquents à partir de mon appli Orange Monnaie en toute simplicité. Si, si, je décide du montant. Je choisis le destinataire, la fréquence d'envoi en jour, semaine ou mois. Une fois que mon transfert automatique est activé, Orange Monnaie le fait pour moi en toute tranquillité et à chaque échéance. Orange Monnaie gën a gën a wóor sama appli Orange Monnaie premier sur le transfert automatique Orange Money est un service de Orange Finance Mobile Sénégal. Orange Money. Aja Cheikh nga ñaan de. ñaan laa leen waa kii dégg nga f dañuy ndëpp tey jii. sa place de l'Obélisque. F24 laa dañuy ndëpp. waaw F24. sa place de l'Obélisque. mais mais autorisé nañ la maa ngi xamaguma de. di la xool. <laughs> waaw F24 match dimanche bi nag bu ñu ko fàtte. dañuy nëpp de ñoom it tey diggante waa D-Media ak waaye. nabu nee na mooy indi ndox mi. mooy ndox bi waaw ah, loolu nag naa dégg Salvador. incha allah kon du gërëm la bu ñu ko fàttee ci kàttanu borom bi. yàlla daal doon ñu sutura man daal maa ngi ci dooleel D-Media. Ah, ah. moom laa faral de. ah ah yow de kon sa sa sa tësul lëndi dana naqari. waaw Maalou Seck. ak li fi Cheikh wax yëpp keroog. ak ni ma waajee sama weekend bi nii sa tësul lëndi dana naqari bu leen ah, ma rusloo Youssouf xam naa ne maximum dañu koy tësal sama waay la man mbaalo nag sama waay la nag fii lañ toog ci rajo wax lu leen neex may ñibbi ñu ne ma ban boor laa jëm ma leen boor sàngam ñu ne ma yóbbaale ah. ma départ tegal leen alxuraan yokkal leen clim bi muy muy sedd ñu jékki-jékki mu yàgg kenn ñu bàyyeeku ñu bàyyeeku <laughs> fàtt na mi ngi sax def leen ma lool de <laughs> Youssouf naan ah bu ñu amee ñun sax baax na déggal loolu parce que dee média wax dëgg yàlla équipe type la ñu am man assuré naa ne bal moom dugg ma ci kàttanu yàlla. incha allahu taala. maa ngi ci kaay. daal seet xanaa mi ngi yàq sama dara daay baax. yàlla defal sutura aar nu sàmm nu yëngu amiin amiin suñu njaboot. amiin aaral suñu aar suñu njaboot gi. amiin wér defal ñu jàmm. ci daraja yonent bi sallallahu alayhi salaatu wa salaam. yàlla wërsëg yu bëri lool. amiin ba toll ci ay milliards yi milliards. amiin amiin liggéey ci yàlla liggéey bu yàlla di nangu. amiin amiin na yàlla def na sutura ci barke alxuraan saafara jàngoro yëpp amiin amiin amiin yal na yàlla saafara jàngoro yëpp neexal diggante yi li ko dalee ci sëy yi ba ci politique beeg ku jëg politique geeg ñi ci nguur gi neexal diggante yi tubarka amiin amiin réew mi li fi or di jamaa mm. di zircon yàlla nañ ko jëriñoo ci ñëpp yëg ci seen bopp baax yàlla rapport yi waaw amiin allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim amiin altine ay te ñoo fi jaaroon na nga bég tey ah, aaye ñu de wóolu nañu la wóolu nañu la ku jaaxle woon na sa xel dal ku meroon na nga bég tey ku doon jooy noppee waaw bugaan koy ñëw jox nga